te yi seetaan fii nga xamante ne bi moom mooy Thiès Prestige TV euh, di ñu euh, seetaan fii nga xamante ne bi mooy télé bi nga xamante ne jamono jun toll mi àdduna bi yëpp moom la ñuy wër àdduna bi yëpp moom la ñuy seetaan euh, ma ñëw fii nag nga xamante ne bi moom mooy dina Fall puñ ñu nee mën na faal nag ñëw nañ fi fekk fi ay éléments yu baax ay coiffeuses yu meilleures ay coiffeuses yi nga xamante ne bii mën naa ne ci anciens yi lañ bokk waaye actuellement ni ñu ngi def lu doy lu amul fenn fii nag la ñu nekk di Medina Fall jàkkaarloog ak fii nga xamante ne moom mooy boulangerie Touba saar di sant yàlla euh, nekk nag salon boo xamante ne bii macha allah adduna bi yëpp ràññee nañ ko muy def lu rafet di def lu jongoma macha allah xam naa ne nag liñ leen di wan ci biir la nekk te bis ngeen diggee di ngeen kontaan. kii mooy kii mooy ah Ndumbe aywa asalaamaaleykum waaye eh, yéen di ngeen di def jongoma la de ah waaye kii marié la wala la

mais euh, dama gis nga defal ko faar bu tubaab bi macha allah jekk lool. Hmm? ma gis ngay def lu am solo. bel bi tamit ñëw macha allah jekk lool. ma gis ci entrée bi tamit nga defal koo xamante ne bii kooku marié la wala lan la. kooku nag moom day xew. dañ koy hmm. xaw a def tuuti takk daal. dégg lool waaw day xaw a def tuuti rek. te nii daal lay recevoir yi ni ma ko fekkee ci buntu bi. waaw loolu nii def. waaye kon boo jékkoo mari yi noo koy def. xanaa def baax macha allah jekk na loolu mu ñëwoon tey jii seet si la fii nga xamante ni bii moom mooy sa salon bi macha allah mu ñëw fekk ngay def lu baax lu am solo lu jekk macha allah ku gis bel bi xam ne li mu koy defal nii macha allah jekk na rafet na taaru na xam nga ni kii ku ko xool xam ne du ancien de ah. ndax instant bi jamono juñ toll nii li nga xamante ne bii moom la jeunesse bi def moom ancien bi moom lay liggéey mu nekk koo xamante ni ku gëm boppam ku gëm li muy def macha allah waa Ndoubé euh, ma lay laaj ndax lii nga xamante ni bii moom ngay def nii da nga ko demaat jàngiwaat wala da wala dafa nekk loo xamante ni don la ci yow. waaw mën naa ni la don la. Mhm. ko waxee fekkee ci su fekkee da nga koo lu dikk da ngay mën a ànd ak moom mais su fekkee mënoo ko lu dikk da dem jàngiwaat la fa kon bu ma bëggee dégg dëgg mhm. kon ça veut yow li nga nekk nii don la ci yow dafa nekk loo xamante ni bii da koy dund actuali bu ñëw rek yow da ngay fekkanteeg moom waaw kon yow damay jàpp ne yow maanaam li ngay def nii tiitoo ko ragaloo ko waaw li may def fii tiituma ko ragaluma ko ndax comme li olof yi naan moom laa xam moom laa tàmm moom laa miin ku ma xamit ci lii nga ma xam kon en dehors de en dehors de quoi bi nekkoo di liggéey leneen loo xamante ne bi bokku ci coiffure bi fekkee dinaa ci booyee tuuti commerce rek mais daal soo bëggee dégg dëgg bëgg a dégg dëgg mhm.

thym marron moom na ko mais rawatina ñoom thym noir mais que boo déggee ñu koy wax dëgg thym noir moo tax tey ma préféré ñaar ñoom ñaar ñëpp ñu doon thym noir waaw boo laalee ci fii ba ñëpp ni waaw dangay parce que en général da ngay seet boo seetloo da ngay gis eh, xale jigéen yi dañuy yi dem di wujji xeesal pour bëgg am teint pour bañ a pour bañ a maintenir seen teint mais dama gis ne kii teint noir bi macha allah dañ ci def lu doy waar lu rafet macha allah. waaw parce que nga war a mën a mën rek fépp nga war a mën a mën yàlla àndee da war a mën lépp te que du am foo mën a bëyantale daal parfois ndax yàlla mooy dëppalee noonu ay mbiram mais lu ci bari war nga am foo xam ne ni war nga koo mën waaw yàlla nag moom bari na sutura mais lan ngay wax sa mbokk jigéen yi nga xamante ne bi dañoo nekk ci métier coiffure lan nga leen di conseillé ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy teint noir yi lan nga leen di conseillé li ma leen di conseillé nii li ma ci feeñwaay nañu gën a góorgóorlu ci seeni temps mm-hmm. bu leen dara dugal ci xeesal mm-hmm. du ma ni leen xeesal baaxul ndax manqué mais ku nekk ak sa choix mm-hmm. ku ci xool ba xam ni sa xeesal sa choix la mën nga ko def mais ku sa teint noir ah, bàyyi ko ca bul laa dara xeesal du ma leen na xeesal baaxul ndax manqué biir kon xeesal baax na manqué biir ma tamit bu la yàlla dimbalee nga am patin noir comme nii mhm. téye ko bu baax ko xoolee. kon tey su ma bëggee dégg-dégg jigéen ñi nga xamante ne bii teint noir lañ teint clair lañ bu leen neexee ñu ñëw defaroo fii te buñ ci ragal dara te xam ne yow pare nga fépp pare nga ci teint yëpp. pare naa ci lépp. Mhm. macha allah pare naa ci lépp mhm. teint yëpp pare naa ci. moom daal macha allah tey boo bëgg daal pare naa ci boo ñëwee daal fii moom boo xasee ba dugg kon xam naa ma jàkkaarloo kii nga xamante ni bii moom sama bel bi ah macha allah sama teint noir bu jongo ba bi macha allah ah mbaa li nga def xeeboo ko. déggal lool mm, est-ce xam nga ne su ma paree maa ngi yow dañuy fas yéene jàkkaarloo. waxtaan lu baax <laughs> waxtaan ci lu baax. nga tuddal ma tuuti ci teint noir bi nga xamante ni bii tey jii. Hmm. jàllale na la ci macha allah. Hmm? Ah, incha allah kon boog maa ngi lay xaar. <laughs> allez merci beaucoup. <laughs> Euh, suñu mbokk téléspectateurs yi tey ñu am mbégte loolu ñëw fii nga xamante ni bii moom mooy Medina Fall euh, fii nag bu ñu nee Medina Fall ku ne xam na fan mooy Medina Fall mu nekk quartier boo xamante ni bii macha allah bëri ay coiffeuses yoo xamante ne bii ay coiffeuses yu am talent lañ tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne bii moom mooy salon bi nga xamante ne bii mooy Ndoumbé Ndiaye ku ne Ndoumbé wax koo xamante ne bii enseigne la macha allah mu nekk euh, jigéen joo xamante ne jigéen ju am talent la jigéen joo xamante ne yàgg na nekk ci métier coiffure bi macha allah nekk fii ci Medina Fall euh, fii nga xamante ne bii moom mooy euh, boulangerie jàkkaarloog boulangerie bi nga xamante ne bii moom mooy Touba Lamsar macha allah muy def lu jongoma lu allah. nek nak ko xamanteni bi yag yàgg na ci métier coiffure allah avant tout nak damay nuyu ki nga xamanteni bi mom moy DG bi di Pape buya di wax ni ko ñu ngi am ci mom say suñu mbekté di wax ni ko carrément allah mom na dal jàmm rek Takham jàmm te xam nga xolal ca kaw ca kanam rek euh, ma sama bët bi allah bu jomama def baax ah wayo di lan la sa xéetu jomama lan la ah wa tam kan mo jaar moom da day ree rek macha allah xam naa moom ku bëri jàmm la <laughs> ma ne ko ci xam naa moom ku bari jàmm la ah macha allah euh, ma gis ni defaral na lu jonga lu macha allah ah ñëw romb la fii nga toog jekk ah ma lay laaj kan moo fii. Mouma Ndiaye. Mouma Ndiaye dafa doy waar doy waaral ko mais euh, avant tout dañuy nuyu téléspectateurs yi hmm? waxtaan ak tuuti comme ça ma jàkkaarloo yow ñu waxante lu baax xam naa ne yow ku war a jàkkaarloo yow laa man de damaa tëdd yaakaar ne am la sax mais malheureusement su ma paree naa ko laaj lan la. maa ngi nuyu ñëpp. di fekk di nuyu ñu média mii. di ko sant bu baax. Mhm. li mu bëgg solo bii yàlla na ko ko yàlla defal. yàlla yokk ko yokk ko yokk ba ca kanam kanam lépp lu muy séentu yàlla ci teg bëtam maa ngi koy ñaan yàlla moo ma defal lii nag yàq ma ba ma yàqatoo nii macha allah barki Serigne Baba dëgg nii ko <laughs> kon daal su ma bëggee dégg dëgg daal mu njaay toj na fi waaw waaye man damaa tëdd gis lu doy waar man mu jaaxal ma ma gis benn femme ñëw na fii di laajte tax marié nga wala lan ma lay laaj ndax yow marié nga. marié naa naka jekk ma ne man juum ma de. marié la. madame la. yaa ngi réer de ah. wala ñu aj foofu. dañ ko aj kon boog suñu mbokk téléspectateurs yi ñu aj foofu ndax xam naa ne bu xuus bu xuusee moom ah dina doy waar loolu ñu am mbégte loolu am contentement. macha allah jekk na taaru na macha allah ndax xam naa ne numbe yàq na hmm? ma lay laaj euh, nga def sa bopp bi amoo ci benn jafe-jafe diisu sa bopp épingle yi jàmm la sonalu la ma laaj ba xam yow nan nga koy dundee actuellement nii parce que depuis sànq ba tey mu ngi nekk aussi ndax période la ak ndax sonalu la wala yaa ngi ci gis sa bopp. sonalu la benn yoon. épingle yi mbaa sonalu la. yëpp correct. jam bi baax na. yëpp parce que d'habitude da ngay gis euh, nga dem ci salon de coiffure ñu defaral la sa bopp mais li lay gën a sonal ci sa bopp moom mooy épingle yi. parce que de dañ koy jam-jam boo xamante ne bii soo moytuwul mën na la teg tataanu mu nekk loo xamante ne bii il faut nga laajaale ko bel bi ma leen laaj aussi euh, ndax xef yi nga xamante ne bii def nga ko ci sa déglu est-ce que sonalu la tamit noonu. parce que xepp dafa nekk lu sensible bi nekk loo xamante ne bii mun na yàq sa bët comme mun na nekk loo xamante ne bii mun na la def loo xamante ne mun naa ne sa bët dafay jaaree yàqu ma lay laaj ndax yow defu la dara. def la dara dafa oyof dara actuellement nii toxoñoo xasanu defu la dara. li nga xamante ne bii moom mooy fond de teint bi nekk nii ci sa kanam ak poudre bi deful benn effet ci sa kanam xasanul. wala tamit yëgoo yëgoo ko tamit. Hmm, parce que deful benn effort. Hmm. ma di la delluwaat di la laajaat fond de teint bi nekk ci sa kanam ak poudre bi ñu def ci sa kanam yaa ngi koy yëg xasanu wala wala yow affaire bi dafa benn effet ci sa yaram. Hmm. yaa ngi koy sentir parce que d'habitude aussi da ngay gis koo xamante ne bi dañ koy defar fond de teint ak poudre mais day jékki-jékki sa yaram bi di xasan soit poudre bi lay doon wala mu nekk fond de teint bi. parce que kii yëpp eh, yamuñu yaram yëpp yamuñu te mun na nekk loo xamante ne bii da koy allergie wala mu nekk loo xamante ne bii daf koy sonal léegi ma lay laaj eh, sa kanam bi instant bi diisul yaa ngi yëg sa bopp bu baax instant bi yaa ngi nekk à l'aise lenn loo xamante ne jafe-jafe la lu nekk si sa kanam lu lay sonal loo xamante ne mu ngi lay perturbé baax fa nga jëm boo fa demee di nga nekk à ah kon yéen a ko déggandoo suñu mbokk téléspectateurs yi kon dafa mel ni Ndoumbe yàq na xale bi defaral na ko ba mu baax te def ci lenn loo xamante ne bii lu koy gaañ la wala lenn loo xamante ne bii mu koy gis ci boppam te ko mu nekk loo xamante ne macha allah am nañ ci mbégte lool xam naa nag dañuy ñëw jàkkaarloo nga xamante ne bii mooy Ndoumbe waxtaanam waa Ndoumbe waaw <laughs> Aïda vraiment ñu am contentement lool ñëw fii nga xamante ne moom mooy sa salon bi vraiment am ci mbégte lool waa Prestige Thiès ñëw fii seet la li nga xamanteni bi mom moy émission bi di Jigéen Tar ñëw aussi seet si la vraiment ñu am mbégte lool am banex am contentement ñeu gis li nga xamanteni bi yaa ngi koy liggéey mu nekk lu rafet lool macha allah vraiment ñepp am nañ ci mbégte am ci contentement ndax xam li nga defar ni nekk loo xamante ni bi défaroko ak sax euh, naqar xol wala nga defara ko ak sa euh, nafsu bakkan mais da nga ko def ak loo xamante ne bii si sa kër la jógee sànq ba tey maa ngi lay xool mais à tout moment saa su ma la xoolee rek da ngay rey rey googu ngay def daf ma neex say xeetu ree damaa neex sa sa bel aussi sànq ba tey day ree rek sànq ba tey day xam naa li nga ko defal macha allah li nga ko defal macha allah parce que xam naa ne bu rafetul woon naa ne du rey te bu rafetul woon tamit gëm naa ne li muy def nii sànq ba tey di si nag bu ko def kon dama jàpp macha allah chapeau à toi mais euh, kii ñu de tey jii sa bel bi ñu ngi ko defal nii jongo ma na de. waaw Aïda laa ko tuddee ma cousine. <laughs> loolu for na de. Aïda di la nuyu di kontaan ci yow di at ah, di kontaan ci sa caméraman bu ñaawul bii. Mm-hmm. ndax depuis ce ba tey mu ñëwee ba tey sonnul tayiwul te mënoon na sonn mbaa mu tàyyi loo ko ne nañ def naa nga mun la ay ceeb. ngeen topp man ba ma xëyee ba tey yéen a ngi ci man ah, defal nii defal nii defal nii <laughs> mhm. may kontaan ci loolu trop trop trop ay Aïda mhm. kon oo ma seen fay mhm. di nuyu tamit seen prési Pape Doumbouya gaa xëy na xaw ma ko mais mi ngi def lu baax di def liggéey bu noobu ci dëkk bi surtout ñun coiffeuse yi dañu kontaan ci moom parce que Thiès dañu manqué woon lii elles sont toutes belles dañ ko manqué woon trop mais delloo si waat ngeen ñi gën ngeen a yokk suñu liggéey kon ñun amuñu seen fay mu daal li ma koy ñaanal gudd fan ak wér lu man ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp man loolu laa koy ñaanal pare a ñëw ci yéen yéen ñu sawar ngeen ñu actif ngeen te it mënoon ngeen a saboté liggéey bi ah, <laughs> dina li dina dina ci ñun mais ci yéen gën a laal parce que boobaa yéen ay réaliser émission bi lu mm-hmm. dëgg mm-hmm. kon ndokk bi ngeen sawaree ñun tamit dañuy gën a kontaan parce que ñun coiffeuse boo nee coiffeuse coiffeuse dafa neex. Mm-hmm. coiffeuse métier noble la. surtout macha allah yàlla suturaal la li ngay def nga xaw koo mën. Mm-hmm. boo koy liggéey da koy liggéey ak fierté. Mm-hmm. da koy liggéey ak xol bu sedd. liggéey ko ak discipline. ah man boo te xam naa ni sama gars yi tamit ñëpp noonu la ñuy def. kon amu ci lu may kon sama bel bi tey lii ma ko defaral kontaan naa trop parce que moom it. macha allah dafa jongama. macha allah <laughs> naqariwu la defal. dëgg la te it xam naa ni yàqul sama loxo. Ah, waaw macha allah. waaw <laughs> vraiment ñu am contentement lool lool lool lool ci nuyu gi mu nuyu kii nga xamante ne bi moom mooy suñu DG bii di Pape Doumbouya mu nekk koo xamante ne ku jar nuyu la ndax tey jii mun naa ne métti coiffure bu demee ba toll fii mu toll ni yàlla jëmbam ji moom moo tax parce que moom moo moo nekk nit koo xamante ne bi day dugg fépp. du loxoti lépp tey jii nag mu ñëw loxoti li nga xamante ni moom mooy métti coiffure mu nekk loo xamante ni bii nag coiffeuse yi soxla woon nañ ko yitte woon nañ ko nga di ci def lu am solo di ci dox ay jéego yu am solo coiffeuse yi nag nee nañu amuñu sa fay am nañ ci yow contentement lool lool lool lool vraiment am ci yow mbégte lool waaw mais euh, mm-hmm. ma gis sa bel bi mm-hmm. lépp loo xamante ne bi laaj naa ko ci boppam laaj ko ci kanamam macha allah mu wax ma ci lu am solo ci li nga xamante ne bii mooy coiffure bi ci li nga xamante ne bii moom mooy épingle yi nga xamante ne moom ngay samp ci boppam bi ci li nga xamante ne bii moom mooy xef yi nekk ci kanam bi li nga xamante ne bii mooy fond de teint bi ak poudre bi nekk ci moom mu wax ma ci lu am solo te loolu dafa nekk loo xamante ne lu jar a bàyyi xel la ma lay laaj Roubé euh, li nga koy defal nii muy fond de teint bi ak li nga def ci boppam bi ma bëgg daal nga démasquer ma ko tuuti nga xam waaw li ma koy defal crème bi booy liggéey ba make-up léegi il faut nga am matériel matériel bi moy poudre bu baax surtout crème bu baax ak base loolu moy liguey bi euh fari tamit machallah crème bi li ëpp solo dal moy crème bi. ak poudre bi. loolu dal mom moy ci am gëna am importance. li ci def yeb bu dikkee foko awale day nang tayit épingle bi xef bi tamit warna mëna doon xef bu baax original comme xef cheveux mom la wara doon. boo ko tegee borom du sonn du diis du ko déranger du mel ni bëtam yi du mel ni day fattu man depuis ce matin ba ni nga ni gis nga dama pose xel mais comme si pose ma parce que damay gis parfois dangay dangay gis xale yu jigéen ñi dañuy pose si mais dañuy am problème vision suñ ko posé mun nañ toog benn temps bu ndaw soit quatre heures de temps la ñuy toog

xef bi tamit dafa am original am bu dul original am na xef yoo xam ne boo àndee col origi col boo xam ne du original da ngay am problème say bët dina xonq dina say bët fi diggante bi day mel daf lay jam te or ko ni la ngay liggéeyee moo normal yow mën nga liggéey de mais matériel bi ngay utiliser moo jaar yoon moo waral muy def noonu. parce que en général damay gis pinceau yi ñuy utiliser dafa nekk loo xamante ne n'importe quelle personne lañ koy defal. da ngay gis dañuy gis da gis benn xale bu jigéen boo xamante ne day ñëw soit day meeku wala mu nekk nit koo xamante ne bi dafa bët yi dafa wàññeeku mu ñëw utiliser li nga xamante ne mooy pinceau bi pinceau boobu noonu est-ce que yoon la nga utiliser waat ko avant nga koy defaat ci biir ko man du ma utiliser sax pinceau des fois damay gis ñoo xam ne dañuy am problème mu bët su ma leen naa tegal si nga ni ma déedéet dama am problème mu bët mais dama naan bàyyil ma tegal la bàyyil ma essayé xool ba fekkente ne arrangé na ma bàyyi fekkente ne arrangé bu ma dindi mais matière ba ma la koy tegale da lay arrangé té boy dem tamit dinaa la soo dee waru goudé ba nga ñëw ba war ko dindi da ngay laal ndànk rek mu dee mu dee mais su fekkee dafa fa loo lo te da ko bëgg a fixé mu nekk ci sa ci sa ci sa bët bu tuuti ci yow parce que en général pinceau boobu ma lay wax non mhm. dañ koy soxla pour képpé ko yi nga xamante ne mu di xef yi bari nag pince lañuy jël mais man sama loxo laay jël tamit xëy na loo ci gis bon daf ci am. daf waaw mais man sama loxo laay dina den saa yi dinaa utiliser pince. Mm-hmm. mais li ma ko utiliser bariwul leer na sama xale yi. sama loxo laay jël. ak matière bi ma koy defee du la déranger mm-hmm. day naturel daal benn problème. vraiment ñu am mbégte loolu ñu am mbégte loolu vraiment ci jàkkaarloo ki nga xamante ni bii mooy suñu bel bi euh, di wax suñu bel bi aussi mu tàggatoo parce que. <laughs> bel bi jeexagul de am na beneen bel bu nekk ci bopp bi faaw ñu jëli bel boobu waaw mu fas yéene jàkkaarloo moom eh mun doy nee na pareegul xam naa du ngeen doyal ci ba may tamit ma doyal ci yéen maa gën a bëgg. di ngeen ma bëggee ko raw laa bëgg kon ma doyal ci yéen ñaari bel di présenté tey incha allah rabbi. kon xam naa suñu bel bi mu tàggatoo. waaw suñu bel bi. waaw ñu fas jàkkaarloo suñu bel bi mu tàggatoo suñu bel bu ñaaw bi ah. Abel. Ah maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. di nuyu sama sama coiffeuse bi di ko sant. Mhm. ma leen lu tàng sama xol. bàkki Cheikh Tidiane lu mu def lépp a sedd sama xol maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. di nuyu samay waajur sama ñaari parents di nuy sama xarit yi ci salon bi. xam ne yàquñu dara dañ bëgg te yàlla rek tax. bëgg ma lool ba gëmewuñ ma. maa ngi nuyu bu baax di la nuyu yow mii di nuyu sa. caméraman mi nga àndal di leen nuyu bu baax di leen wax ni kontaan naa kontaan naa bu baax a baax sama xol seet na bii bii so waxee man damaa jooy toogumaa jooy. kon ñun eh, ñoo ko gisandoo eh, suñu mbokk téléspectateur yi am mbégte lool macha allah ndax eh, am anu na ku may séntu wax bi mu nekk bel bi macha allah kooku dañ koy def jëli cey. <laughs> waaw suñu mbokk téléspectateur yi amaan mbégte jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy suñu bel bi moom daal. ಬಿಡ ನುಂಬೆ ನುಂಬೆ ನುಂಬೆ ನುಂಬೆ tamit ah waaw ನುಂಬೆ lii lan la ನುಂಬೆ yow ah waxatuñu mu andi waate nag macha allah jigéen ju taaru ah waa yow man sama ko sama xol bi day sedd sànq sama caméraman bi dafa lu am solo nee na xale tey noir maa ngi lay fay bu vraiment di am mbégte loolu di jàkkaarloo ak yow. macha allah di la di la wax ne vraiment am nañu sa contentement lool. di la wax aussi ñun ñuy ñi nga xamante ne mooy ñooy suñu mbokk téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan di kontaan ci macha allah di kontaan ci télé bi ak ci borom télé bi waaye moom dama koo mere Pape Doumbia damaa woote ca dugg rëy te ko ñëw waaye ba tey borom baax na nag. macha allah mais dañ koy comprendre rek xam ne jafe-jafe yi ak situation yi moom moo demee noonu rek mu teewal ma. moom amul daa amul jot nag. waaw dëgg waaw dañ koy comprendre xam ne situation yi moo demee noonu. moom dafa nekk nit koo xamante ne bii moom du tànkam lu kenn loolu dëgg la bu la tànkam loo dafa fekk dafa nekk ci ay jafe-jafe ne bii maanaam dafa nekk ci ay situation yoo xamante ne liggéey bi dafay xat moom dëgg la waaw liggéey bi day xat ci dëgg dafa nekk nit koo xamante ne ku gën la du tànkam lu kenn wallaay xam naa loolu mais liggéey bi mooy toll foo xamante ne bii moom sax du moom boppam loolu dëgg la comprendre naa loolu <laughs> xam naa loolu loolu la fa demee mhm. macha allah waaye ñu ngi kontaan ci moom na di kontaan ci télé bi di leen ñaanal ngeen gën a am yokkute te macha allah lii moom lu rafet la ñu ngi koy rafetlu te lii day gën a euh, may doole borom sono yi mhm. muy num ay moroomam macha allah lii dafa baax ci Thiès mhm. man li suñu sag la dëgg yàlla ñu ngi kontaan macha allah ci yéen ak seen taxawaay lépp rek di kontaan sama mag xol yi borom loxo ba garaaw bi li ma koy woowee chaque jour rek macha allah <laughs> yal na yàlla yàmmal ko ci baax sëñ Fall <laughs> macha allah euh, ñu am mbégte waat lool lool lool kii nga xamante ne mooy Pape Doumbia nekk koo xamante ne bii macha allah day def lu doy ñaree def lu doy nag mooy que ne day lokkati loo xamante ne bii dafa làqatu métier coiffure sànq maa ngi lañ koy wax dafa nekk loo xamante ne bii dafa war a fës nekk lu ndaw te dafa nekk loo xamante ne jamono juñ toll nii xale bu jigéen boo gis mu dugg ci néegu sëy mën naa ne néegu mën naa ne coiffure nekk na loo xamante ne bii gën na ko cee yokk kon ñun mun naa ne amuñu fay coiffeuse yi ab dumbiyaa coiffeuse yi ne nañu amuñu sa fay yow dañ lay baye ak yalla rek yalla mi am fay mom mo lay fay ya ngi def lu doy war di def liggéey bu doy war nak ma sha allah ñu be ma di la nuyu. waaw maa ngi lay fay di la nuyuwaat sax lay wax. man dama joome man ci yow. <laughs> maa cousine ma ngi lay nuyu di kontaan ci yow. waaw di nuyu sama cousine bi ñaawal bi rek ma dess si di la nuyu ndax yow duma doyal ci yow tay ji dag ma defal lo xamni lu neex leer na ma ni soo ko defit xeyna bari bariwul tay ñaari bel nga ma proposé mhm. ma góorgóorlu ca di la ko di kontaan lool tamit lool ci yow di la ñaanal yàlla rek wax waxaat du bari wax xol bu sedd guy la mais di kontaan ci yow ndax tamit mënoon nga ni ma benn bel nga may ngay defar te boobaa tamit danga may taxawul naan ma gaawal mais danga ma bàyyi ma jël sama temps liggéey lu rafet te mënoon nga maa taxaw mais defoo loolu sa caméraman bii tamit comme ni ma ko waxee woon rek dinaa ko waxaat sonnul tàyyiwul defal nii defal nii defal nii defal nii kon tamit nag oo ma seen fay yàlla laa leen bàyyeel di leen ñaan ngeen yokk ba yëg ko fi ngeen ci nekk ak seen télé fi ngeen bëgg mu yegg fa yàlla na ko yàlla yee yàlla na ko fa yàlla eggalee ci barke sëñ Fall vraiment ñu am mbégte nekk loo xamante ne solo parce que li mu wax ni mën naa ne ci xolam ko tubbee te loo lépp loo tibbee ci sa xol la dafa fekk dafa nekk ci yow mu nekk nag nit ku baax nit koo xamante nit ku gën la macha allah du dund coiffure nag lool mu nekk tam nit koo xamante ni bi dafa gëm li muy def macha allah nit ku gëm li muy def rek kooku nekk na nit koo xamante ne bii avenir da koo am te dafa nekk nit ku am avenir mu nekk fekk ay élèves ay élèves déggal ko loolu macha allah kii dafa am jom te li ma ko wax nii mu nekk li nga xamante ne bii moom mooy ñaari bel yi nekkul loo xamante ne bii di yomb la mais moom moo ko liggéey. ndax nit ku nekk nit la macha allah bi ñu ñëwee waxtaan ak moom waxtaan moom ci li nga xamante ne bii moom mooy émission bi ku ci ñëw d'accord nii lépp loo xamante ne bii rek teg nañ ko ci moom rek da koo tegoon nangu ko nag mu nekk loo xamante ne yombul parce que nga ñëw bëgg ñu bëgg def rek yow dara ne la temps bii ngay fay mu jaral la nga mu nekk loo xamante ni bii tamit bëgg nga ko gëm nga ko mu nekk loo xamante ni bii aussi tibbee nga ko ci sa biir xol kooku gëm naa ne du gàntu kenn te ba ba ñu ñëwee aussi nangul nañu ko

gàntu woo ñu benn yoon à chaque fois saa su ma la woowee téléphone ne la yaa ngi pare nga ma wa maangi ngi pare mu nek lo xamanteni bi mbégte la ba Prestige nak am nañu sa fay tay nak dina lay xamal yeen yi nga xamanteni bi yene suñu mbokk ko Prestige yeen dama bëgg yeen ñew ñu jàkkaarloo ak yéen ñu waa Prestige TV defante ak yeen lu baax fësal seen liggéey parce que seen liggéey dafa war a fës da ngay la tollu fo xamanteni bi bii métier coiffure dafa toll foo xamante ne bii dafa war a fës te li koy fësal nag mooy lii nga xamanteni bi suñu télé bii di Prestige TV Pape Doumbia nag di ci def liggéey bu am solo bugguma nag ngeen daw bugguma ngeen tàyyi ne leen ko jaral ñu fësal leen parce que coiffeuse yi dañoo war a fës ah. dañoo war a fës bu baax sax war a fës déggoo sànq wax naa la ko nee naa li ñu leen sant dénga surtout ñun coiffeuse yi kees mm-hmm, mm-hmm. parce que yéen bi ñuy jàppale tamit li ngay liggéey nit am expérience am bu baax mm-hmm. ñëw ni la dama bëgg nga ñëw ma di la liggéeyal ma di la def di la liggéeyal nga pour wane sa gën a nga sa bopp loolu ku lay defa lool amoo fayam mhm. te yéen koy def ci anam bu rafet yéen koy def ci lu ànd ak jar ànd ak ay teggin taayewu leen benn yoon lu ngeen ciy defee xol bu sedd guy ak sawati ngeen koy defee sama tey ba nëgë ni mën ak yéen ñoo nekk ak sama élèves ñaawul yii mhm. ñoom nga xam ni seetaan ma ci benn yoon lu may man rek ngir yàlla ak ñoom ñoo tax di ko commencé ci Ami juuf mais taxaw mhm. ak euh, Ndey Roqaya ak Fatou Socé ak mhm. Ndeye sama belle dix jours waaw aw ma seen fay li ma leen di ñaan na gudd fan ak wér mhm. yéen tamit ngeen toog a bet seen i yàlla may leen sëriñ yu baax a baax a baax ci barke Sëñ Fall loolu laa leen di ñaanal mhm. ba tax na nag liggéey bi macha allah kontaan naa ci yéen li may woo sama mbokki ci coiffeuse dama ni leen di si waa Thiès précise surtout loolu mburuma fa la xoyom xoyof ne aussi xéewal gaa nga fa macha dama bëgg sama bët coiffeuse yi Thiès yëpp ngeen daw seeti suñu cousine mhm. ayda mhm. ah ayda yor na ko de. leneen ñun daw ñu taayuñu. dafa ñoom daw ñu taayuñu te anam bu rafet lañ ñu koy defaree. Mhm. incha allah ñëpp dinañ ñëw ndegam soob na yàlla man daa maa ngi woo ñëpp ñu ñëw. te ci dawuñu taayi boobu ci la ñuy wax ak ñun fu ngeen ñu woo ñu si leen lépp loo xamante ne bii bëgg ngeen ko fësal ci seen métier coiffure ñun dañ leen ciy fekk si ba mu jeex. nee naa leen ñun waa Prestige TV ñu dañu xuus ak yéen ba mu jeex tàkk ci lépp loo xamante ne bii ci métier coiffure la te tamit jàpp leen na ñun duñu daw duñu taay te jàpp leen na tamit ñun ak yéen xolal fii ak maa ngi fi <laughs> Prestige ca kaw ca kanam waay. <laughs> lu baax <laughs> Pape Doumbouya yow amal fu dund rek yow mi nga xamante ne bii tey jii vraiment coiffeuse yi yëpp dañoo kontaan li ngay def nii dafa nekk loo xamante ne bii vraiment lu am solo la lu am ama ama am solo la. yàlla sa jàmb yàgg li ngay def nii yàlla nekk loo xamante ne bii day law saawaan baawaan waa coiffeuse yëpp waa ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy tuur coiffeuse yi li ko dalee ci ñoom aadama Kanté ñoom Jami ñoom ñëpp nee nañu am nañu mbégte ci yow te nag nee nañ ñu nag ñoom ak yéen. Mm-hmm. xolal ba géej gi fet prestige rek moo ko yor. waaw xam naa di nuyu euh, kii nga xamante ne moom mooy sama caméraman bii di Doudou Dieye moom mi nga xamante ne bii moom moo nekkoon ak man depuis ce matin ba léegi sonnul tàyyiwul lépp loo xamante ne bii war na ko ci li nga xamante ne moom maanaam émission bi rek mu ngi koy doxal ba mu. di remercier tamit sama belle du jour taaliba Serigne Fallou Ba nii mm-hmm. sama xarit sama doomi ndey. Mm-hmm. sama genn wàll. macha allah démb bi nga ma ko waxee. Mm-hmm. dama ko daal di woo téléphone ma tëdd ma ne la juru nga ma koy wax. boo toogoon ba ñu ñëw nga woo ma damay dikk. seetal lool loolu dafa neex. Kan boo ya? woon ba bu ñu xasoo bi ngeen ñëwee ba teg ba toog suma ko woowee lu mu jàppoon da koy bàyyi day dikk effectivement noonu la ko defee ah. di ko ñaanal yàlla dama ko woo mu daal dikk. ñëw anam bu rafet nag. Mhm. sañsel ma lu rafet. Mhm. dëgg yàlla caam baabel Demba Caam borom ne ni waas <laughs> sama tëgg bu rafet bii taaliba Sëriñ Fàllu baa ngi nii gëm suñu Abdou Karim ba mu jeex di barke Sëriñ Fàllu di gërëm tamit sama taw bu jigéen bi Mariam Gueye mhm. sama xarit sama soppe sama taw bu rafet boobu waaye jëmba aw ma sa fay yàlla rek laa la bàyyeel ndax mënoon nga diisal lépp te lépp nga ma oyofal lépp nga ma yombalal day togg mu neex di ma indi ci salon bi leer na sama xale yi yàlla laa la bàyyeel wujju nag doo ko am waaw euh, di am mbégte loolu vraiment li mu wax nii rek dafa neex ci xol dafa sedd xol di am mbégte di am contentement du nuyu aussi ñi nga xamante ni bi ñoom laa nekkal di fee nga xamante ne bi moom mooy Prestige TV Thiès nekk télé bi nga xamante ne macha di gërëm tamit waa koñ bi yëpp fàttewul di gërëm ñëpp sama client yi ñëpp maa ngi leen di gërëm bàyyiwu ma kenn ku lim da ngay juum billaay bàyyiwu ma kenn di di sant sama yaay bu baax a baax ndax tamit lu ma mën jeg saalaak way de moo ma barke Serigne Touba. waaw xam naa ne euh, ñoom ñëpp ñu leen bëggee. ah ku lim dangay juum mais faaw sama yaay moo waroon jiitu lépp. waaw waaw loolu dafa mais xam nga temps moo xaw a xat waaye yeeg saa bàyyi ma leen bàyyi ma suñu waa kër. Mm-hmm. sama jeeg ju baax di togg te kër gi tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm. ak sama jeeg ji ci koñ bi ñoom ki ne ngay a jaxate ñoom ñëpp bàyyi ma kenn daal sama càmmiñ jaxate. <laughs> seex naar jóob ñoom daal bàyyi ma kenn macha allah daal tool vraiment nak di am contentement di ñeu fi nga xamantene ne mom moy salon bi nga xamantene ne moy mooy Ndoumbé jaay mu nekk ko xamantene ne sha allah ku meilleur la kep ko xamantene ne bëgg nga sa kanam baax bëgg nga sa bopp baax daw su ñeu fi nga xamante ne bii moom mooy salon Ndoumbé Ndiaye moom dawul taayiwul la ah, sa xol lepp mën nako engager engagé. te loo xalaat dañ koy def. ma gis nga. <laughs> lo ci xalaat dañ koy def. bo amé sa perruque mu la jaaxal la. bo indé ñu entretien ko mu rafet. sha allah coiffé la simpot ba mu baax jox la te prix bi du prix bu abordable lay doon. waaw mu nekk loo xamante dañuy def tamit <laughs> euh, entretien kii frisé <laughs> di def entretien red. Mhm. ñun daal lépp la ñuy def. waaw mu nekk loo xamante boo ñëwee. loo bëgg daal soo dikkee nañ la ko defal. lépp loo xamante ne bi jaaxal na la rek. taw nga xamante ne jaaxal na la ba jaaxal la xale yi ñaaw li <laughs> waaw lépp loo xamante ne jaaxal na la ba jaaxal la rek daw si nga ñëw fii nga xamante ne bi moom mooy salon Loumy Ndiaye nekk fii ci Medina Fall.

su ma xoolee rek bi seen billaay ndeysaan <laughs> ñu bëgg nga euh, ñu ñu bëgg nga xamante ne moom bi ñoom ñooy see suñu mbokk téléspectateurs yi waaw maa ngi tàggatoo ñëpp rek di leen ñaanal comme ni ma waxoon sànq rek mm-hmm. di ñaanal ñëpp di wax askan bi rek ñu jàpp télé bi <laughs> macha allah suñu fierté la ñoo leen wut si ko ah ñu defar mbir yi ba mu baax rek mu ngi noonu des fois ngay jaar sama mag ji tamit nu mbéy moom sëñ Fallou moom sëñ Fallou ñu boole <laughs> wallaay yàlla xam na ko yal yàlla jàmmal ko mm-hmm. loxo bi mm-hmm. lépp lu dugg rek mu yomb ci bàkk sëñ Fallou Mbacke macha allah kontaan naa ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm na waaw ci bàkk sëñ yàlla na ñëpp am jàmm man moom kontaan naa moom. bu <laughs> nekk loo xamante ne wax na ko moo nekk lu am solo nañu jàpp ci liggéey bi parce que ñun yéen rek la ñu am yéen ñi nga xamante ne yéen suñu mbokku waa Fessi ñun yéen rek la am fépp fi ngeen ñu woo ñun dinañ leen wuy si ñun ñi nga xamante ne bii ñun ñooy waa Prestige TV ñëw nag ànd ak yéen gunge leen ànd ak yéen xoolal doxantoog yéen ba ngeen bëgg ba li ngeen bëgg mu sotti ak jàmm ak salaam fii lay xewee nag sur la prestige